waa mais fu nag naa di fee am na am na changement tuuti. tuuti mais bëggoon naa aussi xam nga wax ju yenn maanaa waxaat ko du bari wax mais saxal ko la je pense que la dernière intervention de mon frère Kadio a été tellement pertinente que war nañ ci taxawaat bu baax a baax a baax mooy encore une fois xool ni ñuy tànne député yi te génne par parlo bi waaye bu waxaatam ci jàngatam que ni problème dañ koy delloo ci ma sénégalais siis parce que du ñu tànn mais ñun sénégalais ñoo war a xaalis suñu ce que xaalis bi ñuy jox le jour du vote wala durant la campagne électorale moo ñu war a gënal mandat bi ñuy dénk nit ki pendant cinq ans six ans sept ans loolu question bi du député yi du président bi mais ñun Sénégalais ñoo war a xool suñu bopp nag di définir ay critères de choix objectif jël xaalis te ko nele xool loo xam lii mooy njariñu réew mi jàpp naa ne kii moo ci gën kii moo ci mën beneen bi ci topp Moussa ma ko wax sànq ma gis nga assemblée nationale jàpp naa li war a njëkk a changé li war a njëkk a corrigé bokk na ci présence ak participation wu dép élu yi ci doxalinu assemblée man dama jàpp sax ni koo xam ne ñëw tudd commission dañoo war a taxat ab loi ku ñëw participer travaux commission yi ba dem plaidé doo doo jël parole. d'accord parce que léegi li gën a feeñ mooy mégalomanie ak show fa ñuy tëgg mbir du ma ñëw. ne naa bàyyi ba télé yi ñëw nag ma taxaw taxaw sóob après génn sa yoon tàggoo sax euh, euh, caméraman bi ci kaw ne maa ngi waaj a wax de maa ngi waaj mais c'est ça wala nga voté en commission nga voté en commission technique ñu ñëw ci caméra yi tu fais le contraire c'est ça mais damay gis ñoo xam ñëw sax intervenir avant que ñu leen ñu leen tontu ñu génn dem seen yoon